Ah, dama ñëwoon ah, ah, Sen TV tey dafa Oustaz Modou Mbaye ba pare gis gis sama ki nga xam ne li muy jéem sax lu bëri Oustaz wuy <laughs> waaw waaw yaa Seyda hmm. lan moo tax kenn du la gis si dara dara dara ah dinañ ma gis si dara kay non si télé bi gis yow waaw c'est que nag xam nag euh, damaa nekk nit koo xam ni damay bëgg fu may dem ñu woo ma tey buñ may woo. Mhm. ña nga xam ni mhm. ñoo ma war a woo. Mhm. woo ma. su ma demee it ñu teg ma ci condition yañ ma war a teg. nekkul fépp laay dem dëgg la. nekkul ku ma bëgg a gis it gis ma. te damaa tënku. li tax ma tënku mooy dama yor daara alxuraan. Ah, damay damay jàngale. damay jàngale damay jàngale damay toog ci suuf di jàngale alxuraan. fan. daara jaa ngi si Sébikotane. Sébikotane. yaa ko moom man si bopp terrain la wala da ko jënd terrain wala da ko loué. moom moo ko nag dañ ma ko jox. dañ la ko jox waaw dañ ma ko jox amaguma sama daara bopp. ah looy xaar si am sa daara bopp. ah yii dafa jotagul rek xam naa bu jotee yàlla dina ko def mbay. ah waaw maa ngi jàngale. ah waaw yow léegi sama loolu rek yow yow wutal terrain. wutal terrain dinaa la am ku ma la présenté bu may la terrain. Tivaouane Peulh. wala Lagos. wala Kër Massar. waaw ki nga xam ne mooy Basirou Ka. Mhm. Basirou Ka. xam naa Basirou Ka Basirou Ka xamante ngeen. Mhm. dina la may terrain. incha allah. dina la may terrain. su la mayee terrain. Mhm. incha allah ñu wut ma jël dinaa la jëlaat fii. ñu woo ñi nga xam ne ñoo koy tabax parce que. ku mel ne Aziz Ndiaye. ah ku mel ne euh, euh, Baye Ndiaye. bàyyi nañ affaire caaxaan si loolu la ñuy dugal seen <laughs> seen seen ku mel ne Pam Matar Lo. Pam Matar ah ñooñu Birane Ndour ñooñu dañoo baax. dañuy def ay ay ay social yooyu. si suuf. té inshallah allah Doro Gueye tamit day def social yooyu. su Basiru kax su la joxé terrain ba paré mhm. inshallah allah ci naa si kàttanu yàlla ak mbaaxam. 2023 mhm. euh, du génn te taxaw lo sa dara bop mhm. waaw deug la. lim nga ñu bax Bachir mom ma ngi koy ñaanal bu baax. vraiment nit ku baax la ñi nga tuddu ñep ay nit yu baax la ñu. Sénégal am na ay nit yu baax mais man la yalla euh, natto xam la ci man bind la ci man. mënuma mënuma kan ñaan. lan ah. moo tax mënoo ñaan te nga nekk si télé yéen a ngi gis télé ay dóorkat lañ. waaw xam nga man damay préférer su may ñaan ma bàyyi ba guddi. ma mhm. jóg jàpp ba set. Mhm. julli ñaar rakk. ñaan mhm. yàlla. ndax xam naa ne yàlla boo bu la mayee moom moo yëkkati ay nit yoo xam bu ñu ñëw. dinañ ñoo defal la te doo doy di doo ñàkk fayda. nekkul rëy nekkul dara nag. kenn mënul fii ku fi am rek dañ laa jàppale. man eh, maay préféré di di ñaan yàlla. su ma ñaanee yàlla yàlla mën na yëkkati koo xamante ne nii. Mm-hmm. Mm-hmm. day ñëw ci daara ji def loo xamante ne nii. Mm-hmm. daf koy def ngir yàlla. Mm-hmm. def ko ci defin bu rafet. Mm-hmm. doo ci doy doo ci ñàkk fayda. ah déedéet yàlla si ak télé la mu méttee. yaa ngi ñaan nag ah nañu waxante dëgg ah, rek. ak télé lu mu méttee. man duma ñaan soo fay fay télé di xoolal. man duma ñaan ah duma ñaan lii lépp nag. ay nit yu baax ñoo koy. jox ma ko. kon kay du ma ñaan xëy xunu. waaw waaw piir la sax. waaw li ma sol lépp riche lay nekk mais ay ñu bëgg yonent bi nag ñoo ma koy terale. xam nga dafa am ñoo xam ne dañ la ah. dañ lay bëgg te yaa rek tax non mais am na ñu la bëgg am na ñu la bañ. mais am ñoo xam dañ maa bëgg te yàlla rek tax nawloo ma. ñoo yëkkati lu cher di ma ko jox. te du ma leen ko ñaan. te boo leen tudd sax du lu mer. dafa ñoo xam ne réew mi dañuy def te yàlla rek tax. def kon euh, kon d'accord nga si. Hmm. kon ñu naan réew mi ay projecteurs fi nekk. am na am na ñoo xam ne tant lamp yi tàkk su leer su lamp yi tàkkul rek. lu leer wax du ñu may. am ñoo xam bu lamp leer naa ñu loolu duñ joxe. mën nga tudd seen <laughs> <laughs> lii kenn nga bëgg kenn du ko seetaan non non du ma ko def ni mhm. bali insaani ala nafsihi basira nit ku nekk yàgg na xam sa bopp mhm. kuy def loolu xam nga sa bopp mhm. am na ñoo xam ni dañuy tëdd ba guddi ñu jóg taal seen oto fëgg benn daara ni leen tijji leen seeni buntu xam naa leen de ah. xam nga daara dafa bëgg ceeb ceeb sëriñ daara yëpp problème ceeb la ñu am bay ah. xam nga lii <laughs> eh, eh, eh. sëriñ daal sant Dieng nag ak ñang mm-hmm. mm-hmm. ak Ndoye. Mm-hmm. problème mu daal problème mu daal yëpp ceeb la. bu baax la siy jàppale. xam nga tonne ceeb 350000 lay jar. Uh-huh. te man ku mel ne sama daara saako ceeb ñaari fan laa koy lekk. ñaari fan wallaahi ceeb kese. léegi am na ñoo xam dañ ñëw ba ci guddi ne la tijji sa daara nga tijji. mbay uh-huh. ñu wàccele ceeb bu bari. taal seen oto dem ni la. bu ko wax ci te ni la ko wax ci télé bis boo ko waxee télé ma bàyyi la. Ah. kon xam nga réew mi am na ñu def ngir yàlla. Uh-huh. mais am na ñoo xam balaa ñu defal jour conférence. Uh-huh. fekk at bi jeex na nga sonn nga ba conférence bi jeex. Uh-huh. ñu ñëw wàcc ceeb bi ci nit ñi xool am na ñoo xam tam. noonu la ñu mel lépp am na ci réew mi. kon kon kon d'accord nga ni am na ñoo xamante ne kon dañuy def si suuf daal. looloo am ci réew mi réew mi am ñu baax mbay. Ah. surtout jigéen ñi. Ah. jigéen ñi jigéen ñi ku mel ne kan ku ku lay deful lu baax. bari na soo ko dul lim. Mm. Eh, dañ ne woykat bi loolu la wax neen soo ko limul buy rey say doom tuddal ma si ay nit. déedéet xam nga. ah tuddal ma si kenn ñaar rek. bugguma bugguma ñoo xam ndax euh, bu xam nga lay euh, dafa àdduna bi yëpp lay wër. Mm-hmm. am ñoo xam dañuy def mais duñu bëgg kenn. Mm-hmm. xam leen. Mm-hmm. am na. man ñu ci bëri ñu may séqal noonu la ñu mel. woykat yi am na ñu si def loolu. yee. woykat yi moom bëgg nañ loolu moom. mbay tuddal mbay mbay Youssou Ndour lu am solo laa lay wax. Youssou Ndour xam nga diine. Mm-hmm. tey bu ñu nee diine. Mm-hmm. lu am solo te gis nga li ma wax na ko partagé. Mm-hmm. buñ ñu nee diine. da ngay xaar nit yi diine ñoo jàppale la. dina am. nit yi diine mën na jàppale. mais man li ma jaaxal mooy ñi may gis ci daara ji. ñi may gis ci jàkk yi ñi may gis ñuy def ay jëf yu rëy en général. ci way xam nga dañ naan tey tey buñ buñ dee dañ naan nitu diine niti àddina mhm. loolu lool ci waxee nitu diine ak mais nitu diine mhm. nitu àddina mhm. nitu aljana ak nitu nitu safara nit mënu koo xam de loolu yàlla moo ko xam mbay bari na koy gis nii mu mu mu zaayire lool nekk nit ci àddina fekk fekk mbay jëfi aljana rek lay def mën naa la ci tegal ay personnes yoo xam ni boo leen gisee nii ay nit yi àddina dëgg lañu ne waaye wallaahi. Mhm. jëfinitu aljana rek la ñuy def ndax lu ma ci yéem mooy. Mhm. suñ ko defee par dañ na naan ñaanal ma na ma xale yi ñaanal. Mm. bugguma kenn xam ko et pourtant bu subaa nga gis la ñu taxaw fee di waye ka fecc. billaahi est-ce que Youssou Ndour non Youssou Ndour mosuma ko gis. xanaa ci télé kon Wally Seck la. mosuma toog ak moom. kon Wally la. déedéet Wally itam mosuma toog ak moom mais gis naa ku jege Wally bokk ak moom direct. Mhm. mu indil la. bokk ak moom direct. kon tey moo ko yónni waxuma la no moo ko yónnee waxuma la. Ah. waaye mosuma dégg moom téléphone. Ah. yaayam nag kinne. na ma ba tàyyi ci alxuraan. Ah. ni ma teral na ma ba tàyyi. ci alxuraan mosuma toog ak moom. Euh, Mbay. kii ma lay wax deretu waali la. nee naa la kooku mosuma ko gis mosuma wax ak moom. mais li xam la la dafa jël ay xale ci daara ja fayal leen at ba mu jeex. ni ma ñii dama bëgg ñu jàng alxuraan. moog waali ñoo bokk ndey ak bàyyi te jigéen la xam nga man dara dara dara ñoruma man alxuraan rek ma ñor. ah kon est-ce que man du ma tudd du ma tudd ku ma defal lu baax xalaatuma ko. Mhm. nee naa la waali mosuma koo gis. Mhm. su ma gis su ma jógoon tey tey pour gis waali mën naa ko gis. Mhm. ndax ko am yaayam mën nga ko am. mais dama ne la kii moog waali ñoo bokk ndey ak bàyyi dafa jël ay xale indi leen ca daara ja ñi ngi jàng. kon waale lu yóbbu yónni. waxuma xaw ma ndax waale lu yóbbu mais man ah. loolu laa la mën a wax fayal leen at bi ba mu jeex. Ah. ni ma man yow yàlla yàlla rek moo tax ma def ko. xale bu ñu feebaree wallaahi. moo leen di jëndal ordonnance daf may woo di ma laaj xale lan lañ soxla ma ne ko soxlawuñu dara. Hmm? waaw te kooku waxuma ko ci tele bi. tudd ma xale bu ndaw bu jigéen. kon kii la toll ci kon ku ndaw ku ndaw ki la sama xarit kii toll ci àddina kon Aïssa du Aïssa Aïssa toll ci àddina Aïssa la du Aïssa toll ci àddina nga xam ne kii tey danga naan yëfi xale la war a def mhm. mais lii yëfi li li lii du yëfi aljanna mhm. lii mooy sadaqatul jaariyatu mhm. lii la yonent bi wax ne bu nit faatoo lépp dagg mais lii mooy dëgg mbay mës ngaa gis ku faatu ñu ne woo ko di mu feccal ko woyal ko déedéet donte dañ koy def dañ koo bëgg lan la ñuy wax nañ ko jàngal alquran nañ ko ñaanal seeti leen yaa Seyda seeti leen oustaz Mouhamed seeti leen diw na ko ñaanal ci daal gi na ko xale wàccal alquran lii ngay dégg fekkel leen ko mm-hmm. doo ko dégg mm-hmm. woyal leen ko fan ko ko dégg mm-hmm. mës nga ko gis déedéet jàkka ja rek lañ koy yóbbu jullee ko fu ñu toll nag naan nañ ko ñaanal yàlla kon bu nekkee nit a ngi dund dangaa war a bàyyi xel loolu mbay sexe bi lu mu bari bari bari alal ji lu mu bari bari bari kër gi lu mu bari bari oto yi lu mu bari bari am na ñu lu ko ëppale woon ana ñu tey uh-huh. ñu ngi ci biir suuf ñu leen di dëgaate ñu leen dëgaate kon alal jooju préparé ci sa bopp préparé ci sa bopp loo xam te boo génnee àddina mais yàlla yërëm la. Mhm. Mhm. mbay dëgg la man dama yor daara mais man man jàpp ma ci ñu baax ñi laa bokk de. Mhm. man damaa jàpp ñi jàpp ni ci ñi gën a bon laa bokk. moo tax man daara ji ma nekk dama ci liggéeyal sama bopp pour man su ma faatoote yàlla yërëm ma. donte maa ngi sañse maa ngi daje gor ñi maa ngi def li ñëpp di def. mais nag am na ay jëf yoo xam dama koy def sama diggante ak sama borom xam nga lu tax. pour su ma faatoo bu ñu ma duggalee ci biir bàmmeel xam naa dama bari ay bàkkaar yàlla man maa yërëm xale bu jigéen bi ma lay wax xale bu ndaw la lii la def jël ay xale fayal leen ak yëpp euh, xam naa commentaire kan la dinaa man nañ ma wax kan la moo ko waalee bokk ndey ak bàyyi mm, fayal leen at bi yëpp yàlla yàlla fay ko kooku soo taxawee nga ni kii lii la laa yaa ngi jugé loo xam ne xamoo ko nga gis koo xam nitu diine la mais tey mooy taxaw def nit loo xamante ni nii da ngay tudd yàlla kon mbaax fa yàlla ka baax ko bon kooku yàlla ko xam. li am solo mooy ñuy ñaanalante. soo gisee sax ku nekk ci safaan bay. man damay préféré ñaanal la yàlla. bari na ñu may gis ñoo xam ni daanak ay fookat lañ leen tuddee mais seen ambition. seeni jëf lépp. wallahi mbay ci daara alxuraan la. ñu ngi ci daara yi di ko toj. di fayal ay jirim. di fay di fayal ay cas social di tijj ay daara di jël ay oustaz ñuy jàngale la ñu ne waaye nekkal yàlla kooku nag da ngay génne ci digganteem ak boromam. Uh-huh. Ah, yaa Seyda nga gis ni ah, ustaas ñoo gën a euh, bëri que macha allah. Uh-huh. ak ah, yaa Seyda yi. waaw yaa Seyda yi dafa mel ne yaa euh, sama xaar bi nekk TFM rek la. sama yaa Fatou Bintou. waaw dégg naa ay concurrent ngeen. Eh, yow taskatu kër nga eh, ah. dégg naa dégg naa du ngeen di neexoo leen noonu. lan Sida yi bari sa tur dëggantaan. amoo taxaw fii que. non non dégg naa da ngaa signé yaa si yaa koy yaa koy waaj nii dégg naa mhm. la. Mhm. Seyda itam bari nañ fi baax lool. Mhm. xoolal ku mel ne Seyda Mariama Niass. kan la kooku. doomu maam Baye Niass. kooku li mokk la alxuraan ci ay góor ak ay jigéen. daal yu ndam non mais yéen yéen yéen doo dégg Mariama Niass. Ah, ah, Seyda la suñu ah, doo dégg yaay Adja Binta Thiaw. non yéen maa ngi ñëw ak yow yéen a gën a nga xam moo génn àddina rahimahullah yal na yàlla yërëm ko. kooku tamit te bu nekkoon fee DTV. DTV waaw kooku moom. léegi xëy na mag Fat Bintu dañ cee gën a dañ cee gën a dañoo tolloo maanaam. maanaam zaman bu ñu nekk nii donte uh-huh. sama yaay la uh-huh. ñu toll zaman bu ñu nekk mu nekk TFM uh-huh. ma nekk seen TV ñu bokk lu ñuy def xay na looloo tax ñu gën a fës. nee na si affaire boobu day waaw léegi yooyu moo tax lan moo moom tamit muy def ay social yooyu yow yow woowu si liggéey bi. dégg nga ah. léegi ñoo si idaa yi ñenn ñi ngi seen daara yi toog di jàng ñoom dañoo préféré reste seen daara yi duñu génn. non non xëy na ñun la yàlla na toog maak sama yaay ñuy génn ci télé mais sama xarit. Uh-huh. ku baax nga tudd Mbaye. Uh-huh. koo xam ne suñu suñu suñu référence la mais suñu suñu suñu suñu soppe la uh-huh. bi may gën a nekk xale di jàng su ma mësaa ñëw sama kër yaay ñuy seetaan tele aljuma su ma wàccee dama ñëw sama yaay danaan ma ab sa yàlla nga yàlla nga nga dem bay waaraate ci tele bi comme Adja Fall dañ ko bëgg ndax fu seeg ak tubaab fakkal la naan ma yàlla nga mën a waaraat comme sama yaay dafa non non déedéet dafa xawoon a tawat accident bi mu fi defoon noonu oh, xawoon a tawat mais alhamdulilah wér na euh, macha allah tey xam ngeen ni ku am place la ci ci ci ci réew mi tey it comme ni nga ko waxee ñun bariwuñu mhm. bariwuñu sama wéttal la mhm. sama yaay la suñu idole la sama xarit la mhm. amuñu benn problème wallahi alazim xanaa jàmm su ma xewlee invité ko su xewlee eh, ñuy waxtaan di daje ci ay bërëb suñu dajee sax ci bërëb yi bu ñu ma joxee parole dama naan jox naa ko suñu yaay ndax mooy suñu yaay diine comme Adja Binta Thiaw nu mu nekk suñu yaay ah, yaay yu baax yooyu nga xam mën naa la ci seetal tey ñu bari ñoo xam ne ay jàmbaar la ñu mhm. duñu ay concurrent de mhm. suñu yaay la suñu suñu suñu suñu kilifa la te suñu référence la ci macha allah su caméra yi taxtee da di ja taggante mais su caméra yi wàccee ngeen noonu loolu loolu waaw man de man de bokkuma ci moom mhm. man moom yàlla dogal na ni lu ma gëmul euh, du duma ko wax ñi ñi nekk ak man sax parfois dañ mën a del maslaa man leen dinaa maslaa mais mënuma mënuma euh, tàgg nit koo xam ni xëy na xamaluma ko ko wala ma euh, wax affaire noonu loolu mënuma ko damay préférer sax noppi. Mhm. damay ah, préférer euh, noppi euh, kii nee nañ Bougane. Hmm. danaa xawoon a mere parce que da nga dañoo déggante woon ci weer bu bëy da nga da nga doon dem TFM est-ce que loolu dëgg la <laughs> ay mbay. Hmm. mais foo déggee lii ah déggoon naa ko bu yàgg damaa amul am am as yow accès rek mais. may man mosuma dégg lii yàlla xam na ko. Ah, li ma dégg si man xanaa moom sama téléphone bii damay am si yow lu leer foo ko déggee. ah man déggoon naa information fii du fee man loolu dégguma ko de. déggoo ko. Guèye ba may wan yonent bi. Ah. boobu bëggoon naa dem lool. Ah. Bougane ma njëkk a yóbbu màkk. Guèye Ndiora mais lan moo tax dem man laa demoon màkk man màkk dem naa fa juróom-benn yoon mm-hmm. bugaan ma njëkk wan yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ma ko ma bëggoon man dama ni la rêve bi ma bëggoon doo ma sa tàqali ko déglu ma pare dugal nit rek bëgg way ma lu wax day leer bugan moo ma njëkk wan yonent bi sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. bugan bam may wo ci tele mm-hmm. bo ci daara ja la nek xombu ma nu ñuy micro mm-hmm. mu wo ma boole maag sama yaaju bax ji ma maa gañ sëri ñu tok di waxtaan ba bugan ber ma àjjuma gëmloo ma sama bop jangal ma tele ba ma mën télé ba lu may lu ñu ma war a defal ci télé. Mmh. te yàlla nga ko jaar la ci moom. Mmh. kooku du sama sama patron de. Mmh. frère la ci man Bougane. nekk koo xam ne nag kër gi yëpp dañ ma naan buggaan ku la weg la. ku la respecté la ku la jox cër la. ak ay ay ay ay waa këram yaayam bëgg ma ñu ànd mag. mu teral ma dama ni la. lii su ko Bougane deful soo ma laajee ci moom damay noppi du ma wax. Ah, ndax nag ku respecté sama bopp laa. ñu gis jigéen ñi fan yi bëri na. jigéen ñaa ngi si si kii ah. bëri na trop. Mm-hmm. jigéen ñi gëmatuñ seen bopp. waaw yow mi nga xam ne soo gisee euh, yow exemple nga. Mm-hmm. ku mel ne coow Adji moom muy mm-hmm. jigéen. soo tey. lan nga koy conseil su doon doom boo xam maa ko jur. du bàyyi li xew lépp fa xew. parce que damay wax ni aji yaayam dundul. parce que jigéen day taxaw yi doomam taxaw boo xamante ni nii. su gisee muy dem ci yenn danger yi. da koy jaral mu joxe bakkanam. waaw aji xale la da xam ne yaayam dundul. waaw dundul. yaayam wax nga dëgg Adji ah. dafa yëramtul parce que jigéen dañ ko war a sàmm. Mm-hmm. dañ ko war a aar. Mm-hmm. dañ ko war a yiir. Mm-hmm. gannaaw boo xamante ni moom jigéen ji xam na boppam. ba tegu fi mu war a tegu. nekk ci li mu war a nekk mosuma wax ci coow lii. intéressé wu ma. mais en tant que jigéen. boo xam ni da nga war a am ay njaboot ëllëg am ay doom. te réew mi duñu baale xale yi ëllëg di la laaj yaay li xewoon nan la xewee ak na la demee jigéen ju nekk war ngaa bàyyi xel sa bopp bàyyi xel loolu nga xamante nii ay réalité yoo xam ne dina ñëw ci sa kanam ay question yoo xam ne àddina dina la ko laaj ëllëg question yoo xam ni say njaboot dina mais buñ la ko laajul dina nekk ci sa bopp moo tax jigéen war na mën a bàyyi xel boppam muy moom ak yeneen jigéen yi nga xam ni tey ñu ngi exposé wu di jaay seen bopp di di di di di di di di di def dox ci ay dill di dox ci ay mbir yoo xam ni mhm. loo ko jëndee jaru ko mbay gis nga jigéen mhm. deram war na koo jaral lu nekk mhm. deram war na koo jaral lu nekk ba nga xamante ni danga koy sàmm ndax ëllëg sa njaboot tey mën naa am doom ju mel ni yow. mais est-ce que rek yëpp dama si jóg comme comme yow déggoon naa tamit danga ibaadu bi dalaa demoon xam nga dalaa def meloo woon nii mën na jékki-jékki changé ah. mën na jékki-jékki rek kii ah. man Grand Dakar laa surtout ay xale jigéen yoo xam ne dañuy taxawaaloog yëpp jël leen exemple ñoom ñëpp. waaw man Grand Dakar si alma dégg rek yëpp. waaw man Grand Dakar laa juddoo. Mm-hmm. sunu kër lañ ma jàngalee alquran sama mag bu góor moom ma njëkk jàngal alquran di Pafal yàlla dogal na suñu kër kenn mosu faa të keruk alquran la ñu fa juddoo yëpp ci daara lañu jàngee mais dig Grand Dakar la juddo digënta tayba Grand Dakar ko ñu super jamono tayba li mo ñu woro ñi gënoon graw ci seen biir lañu ñu fa lañ doon jàngee alxuraan du deug kon man fofu la juddo waye nak tubaab fakal la mosuñoo te fofu lañu doon jàngalee alxuraan maanaam li yi yi jigen di jaar mën na la wax ni la jaar na parce que ma def na salon de coiffure sept ans. Mhm. ah kon kay kon kay yéen yi nga xam ne ibaadu yi nga xam ne da ngeen tere mees. Hmm. nga jaar si. waaw kon kay kon kay. jaar xam nga euh, def naa salon de coiffure sept yoo xam ne liggéey naa ko. Hmm. ci biir salon de coiffure foofu laa muuroo génn fa dem daara jàng alxuraan ba mokkal alxuraan ñëw di jàngale alxuraan. Hmm. kon tey xale yu jigéen yi nga xam te ne ñu ngi ci mën nañoo ñëw xam ni c'est pas trop tard. man bi may jàngi alxuraan dem naa ba nekk mag doo ko dem daara di jàngi. jàng ba tey tey maa ngi samp sama daara di jàngal ay nit ñuy mokkal alquran ne xale yi jigéen ñi waaw nekk nii sàngar si ñoo ko bëgg gën a ko gën a bëgg ak tux ak ak tux ak volet bi complexe ah, complexe bi dugg si géwin géwin géwin yi dafa xam nga nekk ak jigéen ak xam nga jigéen bu nekkee da nga yow kenn waru laa wax seer nga mm-hmm. nga jàpp yow da ngaa war a nekk mm-hmm. mooy indi yi xew affaire yëpp affaire complexe la rek mm-hmm. mais nag bay jabar dafa am soxnaam xale yu góor ñi ak ñoom fulla gis nga bu ñu bëggee fo mhm. gel la ñuy wuti mhm. foo ak yow mhm. ànd ak yow fu nekk mais suñu bëggee takk soxna la ñuy wut teg seen biir kër yi koo xam ne xamul dara mbay xale bu jigéen boo xam soo ko waxee mu ne la yaay bañ yaay nangu yaa ko teree neex foo ko bëggee noo ko bëggee noonu laa koy defee nammuma dara yow ko góor ki ma àndal bul namm dara fu nekk maa ak yow ànd nañ fa lu nekk def nañ ko. Mhm. léegi su mariage bi amee un mois. Mhm. waa ji day doon ndax waa ji suuroon na démb. Mhm. xale yu jigéen bari lii moo leen lor. yaa ko teree neex. góor dafa war a namm dara. yow xale bu jigéen bi nga nam dara. ngay bañ. bul nangu bu mu ko teree neex. del lànk ba mu def li mu war a def ci yow pare nga doo ko ko jox. mais xale yu góor léegi namatuñ dara. ndax xale yu jigéen ñi. moo tax léegi jaralatul leen dara mm-hmm. jigéen soo ko mosaan bëgg dangay ngay dajale say mbokk dajale mm-hmm. nga jël lu rëy dem jox ko indi ko ci sa kër xam ne jamaa nga yor mm-hmm. tey xale yi jaratuñ dara ñoom ñoo lay forcer sax seen bopp takk la yor la naan la noo ko bëggee foo ko bëggee yëf yi yomb moo tax góor ñi fooy lii moo xew ci réew mi <laughs> jërëjëf <laughs> yaa si daa kontaan nañu bu baax a baax a baax kon euh, ku la ku soxla sa numéro mën naa maanaam pour daara ji waaw mën naa mën naa kaa ci ginnaaw waaw numéro daara ji mën naa kaa dugal man nag numéro daara ji laa yor mhm. tey damay wax ni ku ma soxla nga vocal mhm. waaw vocal ndax jigéen ñi mhm. dinaay waxtaan ak ñoom lu bari ci seen wàllu di leen dimbali di leen orienté di leen sëyloo di leen muñ loo góor ñi yenn saa yi wax ak man ma wax leen ni ñu war a yoree ñoom it ndax xel fépp la ko yàlla di def waaye man sama liggéey dëgg ci daara ji la nekk di jàngal ay xale di di la jéem a teg ci yoon wu baax. Mm-hmm. waaw ci loolu daal la nekk numéro bi 77 euh, la. 535 96 50. jërëjëf.